que sunu naataango moom nag dafa am double casquette parce que qu'il est journaliste et présentateur chroniqueur mais aussi dafa nekk euh, doomu daara ñu war a waxtaan ni ak moom li nga xamante ne moom mooy actualité ci weeru gi ni ñu koy defee mais surtout aussi li nga xamante ne moom mooy liggéey bi nga xamante ne moom lay liggéey fii euh, ci boit bu yees bi nga xamante ne mi ngi fii euh, depuis quelques mois mais balaa ñuy tàmbali laajte ak tontu yi Alaaji dama lay nuyu di la ziar di la bàyyi aussi nga nuyu ak téléspectateurs yi ñuy seetaan maa ngi lay nuyu bu baax Adja maa ngi nuyu ñu ñuy seetaan. Euh, di kontaan lool ci gisantewaat ak yow. xam nga nag yow suma partenaire longue date nga wax dëgg yàlla donc euh, sabar naa ci émission bi kontaan naa ci lool ci dajewaat ak yow waxtaan di ñaan yàlla defal ñu émission bu neex incha allah. amin amin alors euh, Alaaji ñu ngi ci weeru koor bi d'ailleurs ñu ngi la fekk fi nga xam te ne moom mooy sa bërëbu liggéeyukaay d'habitude yow pro sa programme weeru koor lan lay nekk. liggéey d'abord. liggéey mu damu amul lu ko ëpp tuyaaba ci jamono weeru koor souvent ñu ni dangay dangay dem fii ci jàkka ji da ngay wird da ngay julli dama ne amul lu ëpp tuyaaba ci weeru koor dóor waar kenn mënta prouver le contraire boo wooree da ngay dem liggéey ba sa heure liggéey jot temps perdu bi nga xam war nga ci nelaw nga nelaw ci tuuti li ci des nga def ci jaamu yàlla même nelaw jaamu yàlla la de cest à nag dañoo nekk ci benn monde boo xam ni fokk ñu du ñu leeral nit ñi ci anamu jaamu yàlla yi doo woor nekk fii di nelaw waroo nelaw da nga war a nekk di a alxuraan da nga war a si parce que bu ci nekk am na temps parce que 12 heures de temps bi nga xam moom ngay woor mhm. liggéey xaj na fi nelaw xaj na fi jaamu yàlla xaj na fi mais islah zaat bayn xaj na fi fekk ñaar ñu xuloo nga leen jubale xaj na fi mais nit ki doo ko forcer Adja weer koor day mel ni événement weeru koor warut a changer dara ci comportement wu nit ki wala habitude nit ki wala doxalinu nit ki lu dul lekk ak naan ak bànneexu bëccëg li nga xam mooy yàqu koor bu dul loolu boo normalee koor warut a changer lenn ci sa ay démarche li mu la aaye ci bëccëg bu dul lekk ak naan danga ko aaye sa bopp bu dul weeru koor bu la koor teewee liggéey dégguloo koor bu la koor teewee nelaw dégguloo diine dangay nelaw da ngay liggéey dangay def li war a def donc warut a changé benn yoon ci sa temps bi nga xam ne yow jullit bi moom nga doon dundee ci ba jamono weeru koor li ci des lépp émotion la rek émotion la rek ci yóbbu en ku nekk xam nga ne weeru koor lépp tuyaaba la mais jullit dundam lépp tuyaaba la bu fekkee comprendre ne moom existence am ci kaw suuf boo xëyee suba gi dépense bi ngay joxe sa kër jaamu yàlla la maslaa bi nga maslaa ak sa waa njaboot jaamu yàlla la li nga leen di rek encadré ñi dëng nga recadré jaamu yàlla la gën a dem liggéeyi jaamu yàlla la ñu ngi fay nekk ak nit ñi maslaa bi ngay def nekk sa ay sa ay collègue ci bi fi ngay liggéeyee quatre de temps xuloo kenn seex ñëpp jaamu tàggoo ci jaamu ñibbi jaamu yàlla la jullit présence bu mu def jaamu yàlla la pourquoi ñu jël koor def ko événement bien sûr qu'événement la parce que dina tax ku ne li nga am redoubler effort dimbali ki amul parce que bu ngoon jotee war nga jox nit mu dogu foofu laay laay woo nit ñi. élan de solidarité. surtout mais pas bëgg soppi comportement wu nit ki bëgg soppi doxalinu nit ki koor du événement. d'accord alors Alaaji yow par rapport ak koor gi d'habitude boo wàccee ban heure yegg sa kër. Euh, d'habitude ndogu li naka lay nekkee c'est vrai que xam naa da ngay bañ parce que comme Diop nga sant euh, ñi ñi lay seetaan similo mais mais mais garaawul euh, ndogu leeg yooyu naka lay naka lay demee. bon comme comme comme Adja man sama liggéey euh, ci média laa nekk man personnellement sama liggéey. tey su ma jógee fii leeral maa ngi dem Al Irshad parce que dama am sama structure bopp aussi. boo xam dafay développer ci wàllu euh, produit médecine bio. donc maa ngi dem fekk samay employé nekk ci planification liggéey bu dee week maa ngi ci sama élevage wala bu fekkee nawet ma nekk tool donc man li may am ci temps sax bariwul guddi gi bu ma bu ma bu ma bu ma ñëwee côté timis bu fekkee tàkkusaan fekk na ma ci yoon ma fay tàkkusaan bu fekkee fekk na ma fekkoon ne ma sama kër moom duma ma xaar waxtu wi ma damay toog xaar timis diggante tàkkusaan ak timis na dama ko fonk ci wird koor ak ñàkk nekk koor ñoo ci yem loolu samay famille xam nañ ko samay soxna xam nañ ko tàkkusaan ak timis moom dama ko fonk ci wird kenn du ma woo jot ma wax dëgg yàlla loolu moom mooy sama dund après bu ma dogee ba noppi nag euh, damay def yëf fi ñu jóobeen dog tuuti mu woyof ma naan li may naan lekk li may lekk bëlis gann soo ko julli julli texet <laughs> waaw da ngay julli julli texet julli texet julli koo xam doo yàkkam ci dara julli goo xam ne da julli goo xam da ngay joxe yàlla faratee ba mat muy al itmi naan da julli ci dal bu fekkee sa biir fees da nga naan las rek yow kenn doo ngay amal affaire mooy ki ngay jàkkaar lool mais bu fekkee da ngay fekkee da nga da nga ñam da nga pain teg ci kafe naan tuuti ni xaaral ma julli timis te ñëw ndogu xaaral ma julli timis te ñëw ndogu loolu mhm. mooy lan mais moment bi ngay jullee sa xel a ngi ci ndogu bi moment bi ngay jullee yaa ngi chronomètre temps bi ngay julli pour ñëw ci ndogu li damay ndogu ba sama biir fees dal ah bon fekk maa ngi sama njàpp ma taxaw julli julli gi ànd na xel mu dal julli texit lay ci timis bi ci timis bi pourtant ñu bëri nee nañ nit ñi da nga war a lekk tàndar mën naa ndox dem julli timis soog a ñëw Sénégal yëpp dañ ko interprété Sénégal li ngay xoolee sax dañ ko interpréter mais nañ ma indil texte man yàlla daf ma dimbali lu ma gisu ci texte rajo duma ko wax télé du ko wax parce que kay wax ci télé ba rajo ba nag fa mu jaar foofu laa jaar moo tax yenn saa yi même au sein de ma famille même ci sama biir famille sax ndeysaan samay doom sax samay soxna yenn saa yi ma xaw a wuuteeg ñoom tuuti yenn saa yi ñu ne ah diw ci télé bii de moom lii la waxoon man ah respecté ko li mu waxoon waaye man mii sa bàyyi de wala man sa alaaji ni lay defee. d'accord léegi pour añ bi nag naka ngay añee juste après julli gi nga xamante ne na nga naan julli bu dal ou bien dangay toog xaar ba ay 22h 23h. waaw su ma jullee julli bu dal diggante timis ak ngeewee damay naafila la damay damay def kii damay continuer wird. Hmm. après sama zikr yooyu ma julli geewee su ma jullee geewee nag wax dëgg yàlla ajaa wax dëgg yàlla dëgg dong laa wax la man du ma naafi la yi ñuy joxe ci télé ak rajo yi ak di ko séddale parce que xam nga naafila nu mu tudd bonus. bu la neexee jël bu la neexee doo jël parce que jàpp naa ne bu dog dee waa ji jot ma jënd sama benn kilo ceeb wala sama benn keesu suukar jox ko ma madame ni ko joxal ma ko diw te bu ko kenn yëg man jàpp naa ni loolu tuyaaba ji ma ci am tuyaaba yi la ëpp ko parce que loolu itam siyaada la. mooy sànq solidarité bi nga doon wax. dafay dellu si waat dellu siwaat. d'accord parce que parce que euh, bu ñu jaawale émotion ak biddaa ak force nit ñi ci lu nekkul diine. guddeelu ñetti bi ñetti rakka bi ngay def guddeelu ñeenteel fukki rakka bi ngay def non naafila bonus la tudd l'islam li mu wax mooy naafi naafila la mooy boo jullee géewe ba noppi bu dee ñaari rakka sa nga ci yokkaat ni profité wu naa ci occasion moment wu weer koor yokkaat ci ñaari rakka tudde ko naafila la ak arab mooy az ziyaada ziyaada yaani mooy bonus euh, bonus ci sama jaamu yàlla pour yokk sama tuyaaba. Mhm. bu ko defee man su ma su ma jullee géwe ba noppi tout dépend ci sama sama programme ak sama cawarte soit ma dem seeti sama benn xarit soit ma julli sama ñaar rakaay naafila tekki sama safa ak wiita teel a tëdd pour amaat force bu ma xëy liggéey ji ndax baa ma dem seeti sama benn copain papis fenn dem waxtaan ak moom ñu naan ataaya <laughs> mais loolu naafila la duñ fa ah jëw si nga dem toog ak sa xarit ngeen. am na la yu loolu ëpp tuyaaba Adja. ma jékki-jékki woo la après gu ne la Adja maa ngi ñëw sa gaal nga may ma bisaab. waaw ak maa ngi relation bi ñu am wóor mën ni da nga ma sopp mu dama laa sopp amul benn tricherie bu am suñu diggante ma ñëw ne nga ñëw nga xelli ma bisaab yi woowu laa ni bari na ñuy naafi la te yi woowu ko ëpp caaxaan baaxul. d'accord foofu ndolle sax. loolu leer na donc ay secret la yu ndaw yoo xamante ne dafay baax aussi ñu koy euh, jébbal askan wi Alaaji ñu dellu sat un ci yow euh, bi nga gënee nekk xale aussi foo ñu ñëw nag ci yenn koor am ñàkkul benn koor bu métti boo xamante ne marqué na la ban koor la woon ak ban at ba set man damaa koor awma koor bu ma passé boo xamante ni vraiment métti na ci man waaw bi ma gënee nekk xale kër Songo mm-hmm. parce que daanañu woor ba noppi dem di ruuj tool ñu woor di bay ba xaw baxaw ñu woor muy tombe ak euh, ñuy jiw gerte parce xam nga période yi nii lay def yenn saa yi nawet day nekk ci jamonoy tabaski <laughs> man maa ngi jëkk fàttalikoo tabaski jamonoy lolli jamonoy wolli dugub jamono joo xam ne dañuy wolli dugub ci laa jëkk fàttalikoo jamono tabaski bi ma nekkee xale yooyu ñëwaat na sama papa dana ma wax naan nit ku ci fekk ñeent yoon ci kaw suuf gudd gudd nga fan maanaam 31 décembre dajeeg mhm. nga fan parce que parce que daanaka am nga cent ans sama papa daana ma wax loolu mais bu dul bu dul loolu ma dund foofu kër songa noonu non parce que boo fekk ne ma commencé dëgg bi may jàngi Mbour bi may jàngi Thiès bi ma nekk université non fàttaliku ma koo xam ni vraiment métti na ci man yenn méttiwaay yi. des fois peut-être temps nga nekk étudiant. ci dem xam-xam jàng amagoo liggéey nga war a ndogu mu métti lool. parce que tout yaa ngi insisté ci solidarité bi ñàkkul peut dafa expérience boo dund bu waral lool. si lépp lu góor di dund ci souffrance dund naa ko ci coono dama doon dox diggante campment ak Kër Songo 7 kilomètres saa bu ma jógee Thiès week te dama bëggoon samay samay waajur bëgg kër songo musuma suma week-end saa bu ma wàccee ngeexoox damay dox ba kër songo wi ko sama sàkk weeru koor toog naa ci àll ba tàyyi bi ma nekkee fii Dakar sama maa ngi dëkkoon ñaari tali sama kër benn tonton diplôme arabe laa indi université foog ma def IFE un an soog a def entre en fak soog a mën a am carte kuddu bu may permettre ma accès ci restauration yi c'était pas facile sama première année sama kër benn tonton boo xam ne chauffeur camion la woon yal na ko yàlla yërëm néegam laa dëkkoon benn sijaada laa doon tëdd donc xam nga période yooyu ak weeru koor day metti bu ñu bu ñu dogee ndox ngay naan après sama tonton daf bëggoon ataay xeele ataay après ñu xaar bool bool bi mu bindu pour ñu ñu mus ci mus ci après xool ba xam di nga am soow wala déet pour bu xëdd jotee cent francs soow loolu def naa ko ñetti at fii Dakar mais wax dëgg yàlla man jàppiwu ma lu metti parce que dama jàppoon ni euh, ci sama dund la bokk par contre bi ma commencé sos kër nag ba takk soxna am ay doom après jënd benn terrain tabax fa ñaari néeg def ci zinc ak sama sama benn jabar am na passé nañu période koor yu metti yu metti loolu wax dëgg yàlla euh, mën nga sax defar bisaab da ngay am problème def ci suukar mais yàlla dimbali na ba loolu xëy na benn at la benn at la euh, affaire yi di changer di changer mais wax dëgg yàlla man ku fonk solidarité la ajaa mus naa mus naa di mus naa di dem weekend ma génn jëm ñaaju jënn fa ñaari keesu tàndarma dab benn njaga njaay euh, dama ñëw ba koy doublé jël tàndarma bi sànni ko ci biir euh, kii oto bi pour bëgg ñoom ñu jot ci tàndarma ji man jomm naa ngoon jot te nit du dogee ci sama wërsëg ci sama ñaq parce que dama yàgg souffrir comme ni nga ko waxee sànq yu ndaw yooyu bon bëggoon naa ko nëbb mais comme ni ma la ko expliqué ci bi ma nekkee fii Dakar Dakar la ma arrivé nag quoi parce que Thiès fi ma nekkoon sama ay mbokk lañ Dakar la ma arriver ak euh, xëy na bi may soog a sos kër ak xëy na bi ma nekkee ci tool yi nekk xale mais dimbalaate lu am solo la ci weeru koor. Absolument Euh, li ñu dese ci waxtu bi noonu euh, te waxtaan bi am na solo xam naa ne Sénégal yi seetaan ñi ngi apprécier euh, bu ñu la xamee aussi c'est vrai may wax double casquette bi mais en tant que journaliste am nga nag ay passage ñu gis la aussi fu ci mel ni groupe des médias nga nekk fa benn moment nit ñi gis ne benn genre ñaaru ñàkk déggoo dafa am sa diggante ak ki nga xamante ne moom mooy le patron Bougane Gueye mënuñu si bañ a wax balaa ñuy ndar képp Euh, am na benn vidéo sax bu viral bu wër ba yow am na ay kàddu yoo si yëkkati jour boobu comment est-ce que vous êtes senti. dama ne woon non dama ne woon du ma wax du wax mukk ci loolu mais euh, kon boog na waa Sénégal xam ni maa ngi soog a wax kon ci Mansour ak Bougane pour tey même vidéo bi ngay dégg noonu wax dëgg yàlla mosuma def vidéo pour Bougane jamais. musuma tontu Bougane jamais te duma ko musa tontu duma musa werante ak Bougane ci àdduna jamais video bi xale yi génne def ko ci TikTok bi def ko ci def ko ci YouTube bi ni Mansour a répondu Bougane nit ñi commenté ci ci télé yi daf ma jàngalaat Sénégal parce que vidéo boobu mois d'octobre laa ko def xaw mois de septembre moom lañ dem jëliwaat ni ma dama tontu Bougane léegi léegi te def mel dama ko xam le même jour laa woo sama benn collègue Evelyne Mandiou Ba man ko kay xool vidéo bi ñu wax dama dégg lu koy naqari jóge ci man Adja xam nga la moo tax euh, ku ku jël démb indiwaat ko ci tey doo boo gis day am fu muy yem Bougane du ma mës a moom du mës dégg kàddu tontu gu jóge ci man loolu na leer ñi may seetaan képp ku gis vidéo bu ni dafa tontu Bougane waxoo dëgg mosuma tontu Bougane man ragaluma su ma doon tontu Bougane ba mu wootee direct laa koy wax direct li ma koy wax. le jour boobu vous êtes senti. rien du tout. Bougane mënu ma li tax mënu ma blessé li mu def ci man ci ngor ak teraanga mënutuma blessé. si Bougane moom mu jëkk jox oto may dawal. Bougane moo génne chèque yi bind ci 2 millions 800 ma dem màkk sans xaalisu kër gi. Bougane moo ma permettre ma am ñaari oto yu ma moomal sama bopp. Bougane moo ma permettre ma tabax étage. Bougane moo ma tabax ma sos kër ci société am ba soog yàlla la nag mais moo ma permettre loolu bi ma àndeek ak moom li ma Bougane jëriñ benn patron de presse dootuma ko jëriñ ci àdduna li ma Bougane jëriñ benn patron de presse dootuma ko jëriñ ci àdduna li ma dund ak buggaan am ko ci koom-koom kaneen dootuma ko defal ci àdduna kon moom <laughs> na mer na xët xëti na def lu ko neex moom dong la concerné waaye waaye moom waaye moom Bougane du mës a dégg lu koy metti face to face mu jógee sama gémmañ et la réaction des sénégalais ku la wax ni waaw mus na dégg Mansour tontu Bougane waxul dëgg c'est la première fois Mansour wax tudd Bougane depuis ma jógee seen TV depuis moom mu woote woon direct ba léegi tey laa soog a wax lu jëm ci Bougane tey ci seen TV. naka nga. moo euh, du ragal. Euh, bu baax kenn yàlla nga lay nuyu. <laughs> mais la réaction des Sénégalais parce que dafa def toole. ñoom ñoo xam xam nga ñoom ñoo xam xam nga Sénégalais yi. Euh, Adja maa ngi yow bu ñu bokkoo ñetti vidéo sax ci ginnaaw su nga ñu ni maa yow am na lu seq. Mhm. cest à man commentaire ébranlé wu ma leçon boobu Ahmed Aïdara moom ko jàngaloon man ma ala man ma alaaji boo bëggee noppalu ci àdduna bul lii commentaire bu nangu ko la nettali sa saaga. il a du ma xool commentaire du ma xool ku du ma nangu ku ma sa saaga sama saaga. Euh, nit ñi nag boo amee ay soppe bu nit defee. lu njuumte da cee lalu. Mhm. mënoo fexe ba soppee du ñu la sotle ça c'est évident kuy sot nag nu ne ngay sote ñii ña ngi ca commentaire ya mais encore une fois mu nekk occasion moo ma wax ak sama mbokk rakk yi nga xam ni dañu nekk ci dañuy dugg dañuy soog a dugg ci métier bi te nekk ci côté digital métier bi amul fen de te ñu ngi jàngal seen bopp ay fen métier bu amul wax lu lu dëgg te ñoom tàmmal nañ seen bopp wax lu lu dëgg Adja Bité a répondre Mansour Diop Mansour a répondre Mali du dëgg te plus plus de cinquante chaînes YouTube ku nekk def nga sama photo def sama video pour man répondre naat Bougane loolu du métier jàng leen nekk être gor nekk gor nit dafay nekk gor nit dafay jàng honnêteté lu mu amul ci yow du ma ko dama taxaw tribunal ci benn procès président tribunal yi ma lii ñu wax yaa ko wax man leen man maa ko wax mun ma diffamation ma ne ko diffamation de ki ma fi indi mooy dama ko diffamé mais li ma wax dëgg la fa mu dëkk fa mu nekk maire ma li ma wax dëgg la moom nag comme tudd dama ko diffamé mais boo demee fi ma fi ma fi ma demoon moom fu mu dëkk ma dem fa def fa deux jours def fa reportage moom ci boppam xam na li mu wax dëgg la xëy na moom moo am doole ni kenn du tudd turam cest à mooy nit dafay gore booy nekk internet yi di jàng di wax dëgg. d'accord léegi très important. alors Alaaji après nga continué liggéey ñu bëri ils s'attendaient à ce que nga démissionné mais ñu jékki-jékki euh, mooy d'un mois presque deux mois ñu génne sa photo qu'est-ce qui s'est passé. ñu génne comprendre ñu sa photo. Mm-hmm. nga posé ak ku ci mel ni Birahim Touré. fii ci locaux ci nga xamante ne moom mooy leeral. ok mooy mooy li ma sànq euh, sama démissionné groupe des médias dafa jotoon. dafa jotoon xam nga mu jotoon groupe de média du ma fa du ma fa simple employé actionnaire laa fa groupe des médias actionnaire laa fa premier plateau bu ñu daaj bu seen TV man ak Bougane ñoo ko daaj ak Pape Dieng ak Jupiter ñun bu seen TV man maa ko daaj maag Bougane Jupiter Pape Dieng duñ ma weddi seen TV et ma fille sama doom la mhm. seen TV maa fi jëkk def journal maa fa jëkk a émission maa fa jëkk a émission production à part wax feeñ maa jëkk ànd ak Arona ak benn caméraman bu tudd Amadou ñu dem Petersen tourné émission chauffeur bi Sen TV sama doom la su ma demee ba wax yi bëri te buggaan waxul ma dégg man ma buggaan dégg te bu continuer day xajam te man ma nekk action sama yaay nee na bu jàmm amul na Sorianto am man ma bàyyi groupe de médias gi ma sos moo ma gënal sama diggante buggaan du yàqu di yàqu ajaar saa boo déggee ni diggante Mansour ak buggaan yàqu na li koy yàqu ci buggaan lay jógee du jógee ci Mansour wallahi buñ taxawoon ci kanamu junni nit buggaan taxaw saaga ma ndey du fay du ma du ma du ma ko tontu jamais ou plus grand jamais te nit mun te fexe mukk mukk ba dégg ma génne sama gémma gi lu ñaaw jëm ci buggaan balaa ngay dem tàggu nga ko waxtaan ngeen tàgguwuma ko tàgguwuma ko parce que gëj nañu déggante gëj nañu déggante tàgguwuma ko alors pourquoi le groupe Leeral groupe Leeral mais bi ñuy dem mag Birahim Touré bi ñuy dem Zik FM c'était une radio musicale bu doon def information 7 mooy le quart mooy le parce que ñi ma ñu woon a affronté yeneen rajo yu mag yi fi nekk ñu ñëw jéngu dóor mu nekkoon défi ci ñun moom itam buggaan jàppale ñu mais ñu courage ñu àndandoo doxal. Mhm. ba mu yëg si fi mu yëg si tey. Mhm. mais mais ku amul courage dem groupe des médias ci fa mu tolloon jamono jooju tey nga war gën a am courage pour ñëw leeral parce que fekk nga fi rajo ak télé ak site benn ñaare bi ci des. Euh, àdduna ay kii la àdduna ay ay ay ay feuilleton la Adja da ngay jaar fi jaar question de choix la ñu bëri nag foogoon nañu bi ma jógee groupe des médias ci yeneen groupe laa doon dem. Mm-hmm. ñu bëri demal fii demal fii mais man nag damay kenn koo xamante mu dëgër bopp kenn du ma wax may teg sama tànk. parce que bi ma jógee RFM. Mm-hmm. Bougane bi ma koy bi may ñëw ci moom message laa ko envoyé xam nga message loolu mooy demande d'emploi désespéré. ñi ma yaakaaroon jamono jooju muy canal info ak 2STV dama dem ba egg fa yóbbu sama demande bugaat message laa ko envoyé loolu muy demande d'emploi désespéré et pourtant foofu la sama wërsëg mujj nekk noonu lay demee ni ñu taale woon groupe des médias Adja noonu la ñuy taale leeral média et puis et puis sax nag Adja boo bëggee dégg-dëgg yan na leeral média sax nag mu mujj nekk suñu kër gu mujj sax ci média nag xam nga man li ma sama papa waxoon mm-hmm. ni ma biir na ma ni Diop ndax toolu dugal ci wax. Mhm. waaye doo nit kuy wax. billahi mon père avait raison man gëm naa ni destin rek mooy tax nit di am métier mais du choix wu boppam man du nitu rajo. Adja man du ma def lu ñaaw naqari naa deret bañ naa yàq der bañ naa lu ñaaw bañ naa jëw bañ naa sakk jëfu démb bëgguma waññi wante waññi wante ay weex bëgg naa nit ku am qualité te yooyu dafa commencé day ci milieu bi. malheureusement. malheureusement moo tax ma ni man. Mhm. yal na ma yàlla dimbali fii nekk sama kër gu mujj. sax nag ma bàyyi média. amiin nekk ci mbay meeg yeneen nekk ci mbay meeg yeneen alors il nous reste cinq minutes Alaaji on peut pas ne pas parler de la situation politique moment bi balaa ñuy dellu siwaat ci yow ban message ngay lancé gis nañu xëqante bi jafe-jafe yi e euh, de manière extraordinaire tout le monde a salué le fait que ñëpp warandoo à l'unisson pour cette année deux mille euh, deux mille vingt-trois signal la wala. Hmm, signal mais jàngat bu yaatu nag boo xam ne du xaj sax ci cinq minutes mais dama koy dama koy tënk rek mu yomb mhm. euh, lan moo tax adduna bi yëpp waxandoo adduna bi yëpp lan moo tax dañ doon wax naan dañ doon wax naan Arabie Saoudite mënuñoo bokk ñoom bis bu ñu waree wala France parce que positionnement géographique nangam nangam mhm. fàtte nañu ni yàlla faalul li mooy def lu ko lu ko mm-hmm. neex c'est li ma ci gën a dégg mooy li ma ci ma ci bëgg li tax ma commencé bu mooy nit ñi foog ñu dellu si ci li yàlla ni wa'tasimu bi xam hablillahi jamian wala tafarraxu tas tas yi nekk ci Sénégal équipe yu bëri yi par parloo yi gën a gën a lante yi moo yàq Sénégal ci côté diine ci côté aada ci côté famille mais surtout ci côté politique ci côté politique manipulation wax lu lu dëgg sosolaatante j'ai posé la question benn ministre ma ne ko yow da nga ni diw bu deewee ñu doon na jabaram mets à sa place. Mhm. ma ni posé benn ma def benn vidéo posé ma ne question benn ministre yow da nga ni diw bu ñu ko condamné dinaa ko def SDF mets à sa place yow diw da ngay dañu yàq dañu yàq sa der d'accord mais ki yàq sa der na xam ne moom itam na il n'a qu'à mettre à ta place. Mhm. amul droit yàq sa der man li ma ñi ma yërëm mooy Adja ñun maag yow média bi laa yërëm parce que ba léegi ñu néew ñoo ci am capacité mën a tenir politiciens ak seen manipulation ñu néew ñu am capacité mën a muñ xaalisu politiciens yi ñu néew ñoo ci am capacité am honnêteté émotion du leen yóbbaale ci bu ñuy analyser les chose parce que léegi dañ dem ba analyse bu dëgër sax amatul ndax ñiy commenter di la saaga mm-hmm. je l'ai dit un jour Euh, à la Sen TV Adja ma man du ma am benn benn rajo liggéey pour une rajo di liggéey pour une télé di liggéey ci page Facebook di liggéey page YouTube alors que benn salaire rajo laa am ba noppi groupe boobu mënuma protéger di ma bàyyeek ay nit ñu may saaga di ngeen éliminer euh, page commentaire bi waa dootuma ñëw biir Adja loolu mooy dëgg mm-hmm. man tey Mansour fii ma nekk ni leeral xamul lu may liggéey xaw ma lan laa xam nañ daal journaliste la mais xaw ma pour rajo la cest à moo tax patron de presse yi itam dañoo doy waar. <laughs> sama bos bii ma nekk ak ba ma jógee ba ma jikkoon a jógee yépp a ci yem <laughs> dañu ñu yuus ñun journaliste yi billahi dañu ñu yuus tey man job boos pour la télé mhm. leeral xam nga fii nga fekk mooy leeral FM maa ngi leeral TV mhm. maa ngi leeral net mais après ban contrat la am mais contrat groupe amul day na waar dañu war a dañu war a génne yow li nga war a def lan la. nga xam nga xam lan la. merci patron yi dañuy nax. merci moo tax nag xoolal du ma jubóog politicien du ma jubóog patron. Mm-hmm. waaye nag bugaan moom. sa waay la sama moom sama la. non sunu waay la c'est mon ami man personnellement. c'est mon ami non sunu waay la sunu waay waaye nag waaye nag na def comme li ma def rek. nañu nañu nañu jënd glace rek nekk ay doomu ndey. jeex na. waaw Guèye boo ma doogalee ci mbedd it moom day metti doomu de bàyyi ma ma dem mu dem. Alaaji laa jëm kanam comme lu rafet li ma wax moom. Mm. wallaahi loolu laa gëm loolu mooy dëgg. absolument doxale noonu rek. na ko baax la. Alaaji kàddu mujj gi lan lay nekk. Euh, di sant bu baax. jërëjëf waxaloo nga ma rek. <laughs> sant bu baax. Mm-hmm. di la encourager yow tam. Mm-hmm. mais di waa Sénégal ñi ñuy seetaan. ni bokk nga ci ñi ma gën a soppanteel te ñu nekkoon ay collègues ñu liggéeyandoo ensemble. man ak yow amuñu limite. Mm-hmm. tooñante yabante wóolu watante mhm. te loolu cofeel doom moo koy def vraiment occasion la ci man aussi ma firndeel ko waa Sénégal que mhm. man a yow ay frères sœurs yu dëgër lañu yoo xamante ni bi waaw fu ma làqatu nga nga nga génne ma ko <laughs> à part ça ñu ngi sant bu baax waa sa équipe bi nga àndal mhm. ñoom Papis Euh, di sant itam ak Issa ak Issa euh, di nuyu Maymuna di sant ñi nekk ci télé bi ñëpp ak ñi ñuy seetaan donc courage Merci courage beaucoup. parce que c'est pas facile aussi mm-hmm. euh, muy seen télé muy suñu télé fu mu di doon foo mën di liggéey ci àdduna ci début bi dina metti mm-hmm. parce que ñi ne ci biti di wax lu dul dëgg daañu fexe ba génnee loxob actionnaire bu nekk ci biir mm-hmm. ñun yaa ngi fàttali bu ñuy soog a nekk des médias dañoo xam naan Pape Diop am na ci wàll ñëpp xam nañu buggaan na ko moom tey fii ma nekk nii leeral am ñoom dañu wax ni yëfi gouvernement la alors que c'est pas vrai parce que man fréquence bi ki ko jox daam jeng bi ko moom xam naa ko laata mu koy jox ndax foofu laa jëkk a defee rajo ci àdduna mhm. groupe bi ko jox donc yoonu état nekku ci yéen seen bos itam la même chose moo tax ma mhm. leen am leen jom te takkul liggéey te bañ a faale ñuy kowante absolument lu dul dëgg te nekk ci mbedd mi yàlla yàlla sàmm leen. amiin yaa rabbi yàlla nangu suñu merci beaucoup amiin amiin yàlla nangu suñu koor te balaa korite itam ñoom xaalis. amiin amiin yaa rabbi <laughs> en tout cas jërëjëf ça a été ça a été un plaisir El Hadj Mansour euh, Diop euh, di la jaajëfal di jaajëfal équipe bi ma àndaloon maa ngi janoog Issa ak euh, Papis Dem moom tamit ancien. <laughs> fële la waa D-Media <laughs> moo tax lañu Mansour xam ko euh, di jaajëfal ni ñuy teewlu di leen jox dig daje demain incha allah même heure même chaîne toujours avec le même plaisir jërë ngeen